maa ngi nii Ousmane Sonko moo fi tax a ñëw ak euh, Ousmane Diomaye Faye tey bu ñu teewee tey bi nawet na trop bon en tant jeune patriote gëm projet bi parce ne dimbali Ousmane Sonko ku sell ki waaw boo tey ñun ñoo ngi ñun ñëpp tey la jeunesse conscience ñoo ngi nii tey gëm suñu bopp réew moo tax tey ñu teew fi pour xeexal suñu réew pour xeexal suñu askan on est là bon fier de nous. oui fier d'être les Sonkolais. ok allez sama gars yi. <laughs> waaw amul dara lii moo lay wan ni on ak procès Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye ah. Sénégal les jeunes compatriotes, vive